jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw. Macky Sall nañ ko wax dëgg mu am yërmande mais senegal li tax man bëggatuma wax senegal woykat bi doon wax naan dëgg man fen waaye fii ñu nekk fena fi man dëgg loolu mooy dëgg. rey nañ fi nit ngir dëgg dàq na nit mu génn ndax dëgg jël nañ nit def ci kaso bi ndax dëgg fenkat yëpp a ngi am jàmm yor kaat kaat yu baax di di di ñam seen wàll ci kii. yor seen i portable lu wër lu waaye wax ñu dugg ci ñoom lañ favoriser bàyyi liggéeykat yi bàyyi ñi bëgg dëgg mais réew moomu fu mu am mais lu mel ni président bu mel ni Macky Sall rek lañ mérito xam nga yàlla suñu borom askan wu muy askan wu muy fal njiit day jël tuuti ci seen jikko bi ñu amee Macky Sall nag ma xool tele yi nit ñi nekk fii wax waxu làmb wax waxu nangam nangam ak Afrique gépp jug di dox xoolal sous-région bi xoolal Sahel bi ñëpp ximmuli ko di yeewu jël tubaab yi takk leen ban dëgër sànni teg leen ci seen euh, teg leen ci seen tegukaay sëñ bi man Sénégal rek ak ak xëy na Côte d'Ivoire laa fi ci dëkk yoo xam ne ñu ngi nelaw ba léegi te ñun ñoo gën a ñoo pour ñun booy pour man booy xool ñun ñoo gën a ñoo ñoo gën a intelligent ñooñu quoi mais suñu intelligent dafa mel ne sangu ak sol ci la yem quoi mais vingt et unième siècle ku mel ni Macky Sall ak dynamique bi tubaab yi jiital ko muy dal ci kaw nit ñi ñu torox àllub neen ñii di dem ci gaal gi ñii di fay cinq millions pour dem Amérique maa ngi leen di conseil nañ ko yokk ku sa am ay lam na ko jaay jox sa doom dem dëkk bi du baax barki sëñ Tuubaa du baax dëkk bu ñu ginnaawal dëgg jël fen teg ci kaw dañuy alku man de bu ma fi barke sëñ Tuubaa Mbàkke sama njaboot gu sew gi tax ak it maa ngi mos dara bu wóor état baa ngi yàq mais maa ngi sant yàlla waaye billaahi wallaahi wa taalaahi dam man maa ngi xiine mii na ku mën a dem Amérique demal du baax na yaakaar ji seen yaakaar ji tas kanam la jëm bu ñu demee ba Amadou Ba yor économie Sénégal ceeb bu weex sax amatul bëggëj léegi mais Amadou Ba lan lan mais mais lan la yorul yor na économie bi yëf yi nërmeelu entreprise yu bari man yu ma xamoon ma daan jëflante ak ñoom daanu nan entreprise France entreprise français yi jëm ca kaw yow da ngay dem France xam nga ne yow sénégalais bi mënoo faa am dara xanaa day fekk français bi soxlaw mais ñun luñ baaxle France yi jël yóbbu luñ bon lay ñu jël ba pare dañuy ñëw suñ biir dëkk nag ñu doonaat seeni ga boole ci waaye nag xam nga liy problème tubaab dafa yeewu tubaab moom yoonam nekkut ci population bi day fexe ba ñun ki ñu fonk fal ko mu jël ko def ko mbindaan yeew ko di ko jariñoo su yoonam nekkut ci ñun population bi ko mais dina fexe ba képp kun fi teg mu jël la yeew la ci buum ku yor économie ak finance ceeb bu weex mënatut am sol nga yor premier ministre ndaw ñiy dee ñii di dem ci gaal gi ñu la joxee réew mi baa doon ñun ñun ñun ñun ñi fi des a kus néew di ñam dara baa doon faatu ñun focus leen ci déglu Ousmane Sonko bu tayee ñu ne yaw nan ngay duggee ci oto na da ngay dem dakaar dem ba buntu Pikine nga gedd oto bi ne wàcc naa yaa xam boo wàccut nooy def egg nga Dakar di Amadou Ba noonu la def nguur gu des trois mois ak ay mam Boye Diao génn yi mbel-mbel yi barki sëñ Touba damay toog mais damay jooy damay toog yor sama xaalis sama poos dara awma benn problème mais damay jooy lu tax may jooy waaye façon nit ñii ñu jiite ak ñun niveau bi ñu amee ak yeewute gi ñu amee ak silwise gi ñu amee xam nga chaque jour dañuy wax ne réew mi bàmbaa ko moom nañ bàyyi bàmba bi ñuy tooñ bàmba moomut réew mi ndax fa ñuy dogale réew mi sax waaye bamba faru fa ne sëñ Tuubaa lim réussir mooy fexe ba ñu sañ a jaamu yàlla te tubaab bi du yeew kenn ku nekk di dund diineem mais ba tey réew mi tubaab bee ko moom xuraan barankoo dego lay fii la ñëw def loo defut ñu jàpp ko ca bis ba degol ne nii ñu bakku yow sëñ Tuubaa di sa set mois ñu nga bërëng yu set wicc yu wéqu ba sedd ñu ngi nii di la doog a kenn baalu la da tëdd sa pen kon yow maanaam taxawaay sañ-sañ bi fi doomu sutub degol am amoo ko fi te sëñ Tuubaa sa maam a xeex lépp kon nañ defaraat toogaay yi bàyyi wax ji leneen li may wax nag mooy lépp loo fa gis ci wàllu politique ak développement te du Sonko ay fen la Ousmane Sonko rek ay dëgg man kenn mënu maa nax damaa yàgg ci game bi ab sëriñ laa mais underground bi moom yàllaa def dama koo maîtriser ñoom ñëppay fen kenn waxu ci dëgg koo ci gis boppam la lay gëmloo te bu ñamee dara daw génn koo fi jàpp ku dul Ousmane Sonko buum gi xam nga di nga jëndum xar jiital ba egg ren di muy am tabaski mais ku yee ku jëm ca daral ga yeewum xar te xooloo boo demee ba sa kër ab bukki lay doon ku dul Ousmane Sonko ab bukki nga ñoom gëmuñu réew mi bëgguñu réew mi seen bopp lañ bëgg deux mille élection yi jàll wane preuve bi wane na ko man de maanaam doon naa jàppale nit ci comportement ak lu ma woonoon mais ba ma jógee ca loola saytu politiciens yi fi nekk jàkkaarloo ak Ousmane Sonko saytu ko man moom instant yi bu bu ma defatee erreur politique bu ma kenn jéggal ndax képp ku bëgg politicien bu bëgg def erreur politique rek àndal ak keneen ku dul Ousmane Sonko. ku bëgg sa erreur politique geex jàppal ci Ousmane Sonko mooy ci Ousmane Sonko. mais ku bëgg say erreur politique ak say juum ak say gëlëm wala yëkkati ndaamalu tekkiwu dara di ko naan xam nay bayit ak bu xamee bayit lu ci suñu yoon kuy wëri bayit day dem ci Idrissa Seck yàlla ma yàlla jëggal ci li ma mës a yëkkati Idrissa Seck ak di ko jàppale barki sëñ Touba loolu jooy naa ci ñaari fan yu tegaloo yàlla na ma yàlla jéggal ci jéem a jéem a jàppale Idrissa gi ma doon jàppale ngir bayit maa ko daq bayit gën ko koo neexle te ay bayitam da koo fortaat te samay bayit sëñ Saliou ma ko jàngal may dof dof lu dem di di di ko topp ngir bayit yàlla na ma yàlla jéggal lool ndaw lu ci bañ a juum daal te bëgg sa réew te bëgg lii sayal bi am ñu am ko li sayal bi am weesuwut nga dëkk ci sa kër yor sa soxna di joxe dépasse am fa baat mooy li sayal am mais ñun liñ nekk ak Côte d'Ivoire ak yeneen réew yi mooy nga nekk sa jëkkër nga nekk ci sa kër yor sa jabar surga ba bu guddi jotee mu jàpp sa loxob jabar yóbbu ñun ci loolu rek lan ne newuñ ci dara lus xam newuñ ci dara lus xam te ñii yeew ba maanaam cest jëmmi won ginnaaw France rek doy na développement parce que loo mën a am te sa xel développé wul dafay mel ni yow amoo dara bala maa ñëwaat bala maa tëj nag ma ñëwaat ci dëkk bi Macky Sall moom ñaar yooyu la réussir fexe ba Touba woon ginnaaw gim mu ko woon ginnaaw mu xeex ak ñoom saboté leen teg leen ay coono yu metti loolu moom réussir na ko ak ñi yenn ñi woote woo kilifa mu wone ne leen nguur lañ bëgg ak alal leneen ñoru leen ñaar yooyu moom xawma lu Macky Sall réussirul mais réussir na lool waaye na xam ne sëñ Muntaxa ku baax la bu dara lii muy def population Touba defuñu ko sëñ Muntaxa la koy def parce que buñ ne vingt et unième siècle dëkk ba nga xam ne nee nañ mooy deuxième capitale mënuñoo naan ah loola borom dëkk ba ngay saboté waaye saboté woo ñu ko dëkke te loolu lenn rek a tax mën ta gañe dëkk bi parce que bokkuñoo moom gëm-gëm parce que moom rek mooy président bi fi njëkk jaar ñàkk Touba Touba nag xaalis jëndu leen dara kafu leen parce que ay liggéeykat lañ bawol bawol moom ku leen xam ca pàkk biteel ba jamono ji liggéey ak dundee lañ xam dañoo am euh, dañoo am dañoo am modèle économie yaakaaruñ ci état dara li nga man rek mooy bëgg réew mi nekk ci dëgg ñu ànd ak yow mais ñi ngi fi gis ñëpp ñuy yagar yagari yi doon ay maanaam euh, bukki yu maanaam bukki yu sangoo deru bay sëñ bi newut ci moom te dañoo Macky dafa jaxase mbir mi ba dafa fexe ba taxaw ci ginnaaw sëñ Muntaxa sa bu la sànnee xeer yow boo ko sànnee day waaf daanaka boo waxee dafay mel ni li ngay wax lu jege sëñ bi loolu lépp nag maanaam da ko réussir ci politique kuy def lu Macky Sall mooy kii xëy soo ba ngoon di def lu bon ñu koy waxal lu baax loolu lépp nag stratégie politique la bu mu teg waaye nag na xam ne cell li mag du nelaw te loolu muy dox xam nañu ko dëkk bii nag dañoo xeex ak Macky Sall ba teg ko ci àndam musu fee am dara musu fee gaña dara ña ko doon def ñun ñii la Amadou Ba li sa patron ta am li nga am ba cour de compte épinglé la mais saawaay nit nan nga man a dugge sa kër fekk fa koy wekk sa écran plat nga jàpp ko ñu defeere ko ëllëg sa nga dajeeg moom ca maquette ba diwut wut gardien di jël kooko di ko indi sa kër muy garde mooy Amadou Ba yow jàpp nga nit loxo ci poste cour de compte épinglé ko ak ñu sew ñu ko wër ëllëg nga ne da nga koy far jox da nga koy jox réew mi mais ñun bu ñu defee loolu mais barke sëñ Touba lu mel noonu buy bëgg am man ma tuxu Gàmbi mais man sama jooy yi dama koy bàyyi te génn réew mi ndaw ñi nañ xam liñ bëgg nañu xam liñ bëgg système bii fi nekk fekk mi ngi fi nekk ñuy alku ñaari intérêt mënta daje ci menn mbir lenn mën a nekk ngeen bàyyi politiciens yii di magi démb yi nekk fii li Wally Seck naan magi démb yaa ngi ñoom Khalifa Sall ak ñii nga xam ne seen bopp képp leen ñor ak interférence nañ leen bu takk ci saako comme ni ñuy sànnee ay muus yu ndaw bu ñu ko defut duñ am jàmm bu ngeen ko defut bu yeboo Nicaragua gee ngeen jëm ngeen gën koo dëgmal te mu gën a yaatu te xam ne du ngeen tekki dara heure bu ngeen gisee Ousmane Sonko ci bopp réew mi nag paasaat leen gedd la ngeen am Nicaragua ñëw te xam ne fii li fi nekk nekkul Amérique parce que am nañ or am nañ jamaa am nañ Serkon am sëñ Touba am Ousmane Sonko ci wet gi mais sunu sunu yaafuus bu mu tax ñu ñu ñu mel ni Éthiopie déggal ma naan Éthiopie Éthiopie sax dem na Rwanda sax dem na xanaa Haïti laay wax ndax séisme ba fa amoon ñun fu am séisme rek lañ mën a tollal parce que ñun dañuy gas ñee suul ndam du am maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi jégalu nag ndax euh, mbir mi xaabaabal na comme ni ko sëñ Assane Mbacke waxee man sax dama ko opposé woon ne ko bul wax pour ma pour mu leer waaye dane ma comme dangaa nekkoon ci biir nit ñi di la jàppale nga am taxawaay faaw nga génn remercier nit ñi ak benn tukki européen ak américain bu ñuy waajal maak moom pour dem nemmeeku patriote yi wax ak ñoom parce que réew mi moom wax fi amatul benn benn njariñ ndax wax dëgg yàlla fen daa xeex dëgg ba toog ci doq bi kon ñiy wax dëgg nan toog amatul dara lu ñuy wax